visité Tanaf le maire de Tanaf mu invité woon comme le maire de Pekes nu mu def tey le maire de Pekes était là-bas pour la première fois moom la fii la juddoo sax damay en passant musul dem Casamance donc je crois que l'intercommunalité moo ko am andi ak le RED donc RED boobu maire yi créé ñu ngi ko créé il y a à peu près huit mois ñu ngi ko créé à Lyon parce que ñoom nañu ne madame Touré Soukeyna Touré dañu ko ñun yaa ngi ñuy mais tout le temps ñu ngi ànd ak yow mais bu ñu delloo Dakar Sénégal nañuy tasaaroo léegi lan la mun def loo xam ne ñun dina def suñu communes yi jigéen ñi góor ñi xale ñu lëkkaloo donc ñu discuter ci plan boobu ñu ne léegi meilleure solution mooy nañuy créer le RED muy réseau d'appui aux initiatives de développement économique. RED boobu également sama xarit yi nekk sama gannaaw muy madame Tari madame Isha Imad ñoom tam dañuy faral di ñëw ñoom du Sénégal rek la ñuy ànd ak ñun sur le plan international dañuy ànd ak ñun. mais bu ñu paree dañuy ñibbi ñu ne leen ñoom tamit yéen dañu bëgg a yéen tamit ngeen ñoo bokk si redd bi donc red bi y a les américain y a les Américains y a Français y Sénégalais et la la sous-région ñu lëkkaloo ñu jéem a liggéey développement. actuellement commune yi dañ ko soxla man surtout commune yi développement commune loolu lay def ma ne nu ñuy développer commune ma xëy na maire. donc duma leen di aider ak surtout l' acte 3 de la décentralisation damay sànni xeer maire dama leen di naan c' une bonne chose c' est l'art de se prendre en charge parce que ñun maire yi leen doon jox yëpp man a ma xam mooy na ngay jéem wuti et les maires l'ont compris actuellement actuellement ñoom ñu ngiy wuti di dugal seen i donc loolu mooy acte 3 bi ma ne leen avec acte 3 bi pour ñu jàppali leen écoutez jéem leen développer également mentalité xale yi noonu leen koy développer ñu ma su kay na comment on fait man leen jéem leen ma cité d' abord luy ma cité d' abord ma xool à gauche à droite ma cité mooy defal sama gox balaa may dem donc ñu initier xale yi si ma cité d' abord mu xawoon métti lool parce que xale yi ñu bëri amuñu sens. ñu ne xale yi ak meer yi na ngeen di jéem a jóg jàppali seen njaboot jàppali seen kër jàppali ma man maire ngeen jàppali également ñun borom réew bi ñu jéem a dox suñu gox moo tax ma tuddee ko ma cité d' abord maire yëpp ànd si. ñu jox loolu actuellement ñu ngi si xale yi fu ñu jëm ñu ngi ñuy topp maire yi boo lu tourné di nga gis maire boo tourné di nga gis acteur au développement boo tourné dinga gis femmes yi looloo waral tey ndaje bi si Pekes ñu di ko def pendant trois jours muy première édition la. la dernière fois wax naa ko ñu ngi woon Tanaaf tey ñu ngi Pekes fii ak fukki fan ak juróom ñu ngi Gouta Gaydi bu ñu fa jógee ñu ngi dem Karang et cetera et noonu la ñuy def de sorte que maire yi sa maire yi ñii nga xam ne ils sont de de rapide ñoom ñëpp léegi ay doomu ndey lañu doomu baay et lu tax loolu mu am dafa facilité ñoom ñëpp ñu xamante benn ñaareel bi ñoom ñëpp ñooy génn tukki bitim réew ñetteel bi seen njaboot bu mu nee njaboot yi mooy góor ñi jigéen ñi ak jeunes yi nañu lëkkaloo parce que Pekes am nañu seen richesse luñ fiy def. Kouthia Gaye di am na lu ñuy def Fawoun am na lu ñuy def loo xam ne femmes yi mën nañu échanger def ko te loolu la actuellement moo fi am femmes yi ñu ngi koy def et ma si contentement am contentement bu baax. fii lu may tënk si population bi démb wax naa ko nee naa buñ fi ñëwee nañu nekk sans appartenance politique te maire bi. ba muy ñëw jéemul xool ndax maire bu mu àndal ki PS la ki PDS la ki APR la et cetera donc dafa ne dama bëgg nga ñëw sama dëkk mu invité maire sans appartenance politique parce que maire yu fi nekk yëpp bokkuñu parti loolu tam c'est important ñu xam ko ñu xool nag la ñuy demalee suñu dëkk kanam loolu war nu ñuy demalee suñu dëkk kanam ñun ñëpp bu ñu dooree day daanu c'est l'expression boo xam ne dama ko doon laa ko waxee bu ñu xool ni kii kat bokkuñu parti dañ koy suuf donc exemple boo xam ne bu ñu ko jëlee kat ah kii kat meeru APR la xaar ma xool waa PDS nu ñuy defalee pour ñu dem mais ñun ñëpp bu ñu defee noonu suñu dëkk dina dem kanam man noonu laa ko gisee du moins parce que damay naan toujours fépp foo xam ne nekk na fa man du ma politique trop mais damay naan am naa politique boo xam ne dama koy def ak politicien boo xam ne moo nekk si gox bu mu nekk pour jàppali ko parce que dama bëgg sama réew pour jàppali ko mu jëm kanam. ginnaaw ndaje ndaje bi. Euh, waxtaan naa ak jigéen ñi sànq donc am naa fi ay membres yu bëri réseau rapide dafa présent partout femmes yi adhéré nañu bëri mais toujours côté financement la ñuy wax donc financement particulièrement man je suis une personne physique mënuma financer mais par contre man ak samay partenaire mën nañ leen financé boo leen xoolee ñetti fan yu fi nekk yëpp yàlla crédit mutuel boo xam ne ñëw na waxtaan ak population PECES je veux dire PECES lu ñu si mën a am mooy dinañu dox à partir du mois prochain signature de protocole bu ñu wax a def ñoom dédommagé nañu benn enveloppe de 400 millions boo xam ne mën nañu ne femmes bu ñu taxawee PECES dañ si am parti bu baax. donc financement boobu mun na taxaw beneen bi dama ne femmes yi financement bi rek taxawul am na plan d'action bu ma taxawal ak ñoom. mooy liggéey formation parce que loolu la ñuy gëm dañu def ay formation yoo xam ne daf leen di jàppale souvent dañuy dugg dans les crédit mu nekk ay crédits en souffrance mu nekk duñ ko fay après elle se retrouve endettée et c'est pas bien donc nañu former xale yi nañu former femmes beneen bi ce qui est important mooy ñu changer la mentalité de la femme sénégalaise nañu bàyyi xew yi ngeen tey ak takk mooy agriculture bi. man bu ma mënoon bàyyi yëpp dem dox ko parce que may naan maire souvent may leen ma teer ma ñëw dem parce que bu fekkee xam ngeen Maroc Maroc boo demee da nga koy confondre ak Europe tout est vert maire gis nañ ko ñoom ñoo mag wax maanaam paysage bi comme Europe tout le monde est à la terre mais ñun ku nekk euh, agriculteur pour yow nekkoo dara mais on n'a rien compris donc c'est l'agriculture la gën a favoriser ñu taxaw si muy góor ak jigéen waaw ci wolof euh, ñu ngi leen di sant di leen gërëm di rafetlu jataayu tey bi di ci bég lool di leen xamal ni tey li am Pekes euh, lu yéeme la puisque Kajoor gépp tey daje nañ fa daje nañ fi ñëw jaxasoo ak madame Touré ànd ak moom mu liggéey liggéey bu rëy Kajoor ndax li fi xew tey musu fi am benn yoon te gis nañ ni am na solo lool ndax population yi gis nañ ci seen bopp ndax lu mel ni je crois que ba kajoor day kajoor ba léegi kenn mësu ko fi gis kon dañ koy rafetlu di sant population yi di sant madame Touré di sant ñëpp ñi nga xam ni tey jii dañ fi teew muy doon bis bu rëy di doon bisu ndam di doon bis boo xam ni vraiment kajoor tey yëgaat na boppam. ci wàllu ci waaw ci wàllu politique euh, am na solo également parce que tey wane na ni euh, mboolem kajoor gépp jox noonu loxo le maire Djibril Mbaye tax tey mobilisation bu day nii nga xam ni ay junni junni junni nit la ñuy wax tey wala même mënuñu sax euh, tey xam lu fi teew si doomu aadama loolu nag dafa wane nii tey ku bëgg defar kajoor di nga jox loxo le maire Djibril mbay ku bëgg indi dara kajoor te jaaroo ko ci moom yaakaar naa ni ah loolu nga bëgg indi dina des parce que tey moom la population yi àndal ndax bu ñu xewlee moom la ñuy gis bu ñu amee problème moom la ñuy gis lu Kajoor soxla moo ciy taxaw lépp lu tund Kajoor ak commune Pekes soxla. en audience waaye lam ñu digoon boobu ba léegi gisuñu ko li ñu ci jaaxal nag mooy tey jii mbooloo mi nga xam ni moo nekk Kajoor nekk ci commune Pekes tey Djibril mbay la ñu àndal muy le maire de Pekes ndax kat liggéey bi mu fiy liggéey ak li mu leen wanagun ak ni mu lëkkaloo ñoom amul keneen ku ko fi def. loolu nag tax na ba ñoom ñëpp jox nañu ko loxo kon dañuy woo le président de la république monsieur son excellence monsieur Macky Sall. kon war nañu jàppale bu baax a baax ndax aussi dañu bokk ci réew mi te li muy liggéey fii kat am na solo lool. président lim ñu digoon jëmoon na ni dina jàppale commune Pekes ndax bam ñu le 20 février dernier la ñu jëloon en audience boobu bu ñu au palais de la république. daf ñu waxoon dina jàppale ko lañ ko gën a soxla tey ji aussi lañ ko gën a tàllal loxo pour que loolu mu ñëw lëngoo ak monsieur le maire Djibril mbay Pekes jëm ci kanam. ci gox bi lan lay xaar ci waaw gox bi mi ngi ciy xaar lu rëy rëy rëy ndax ndaje mu mel nii aussi bu amee tey crédit mutuel teew jafe ci wàllu financement je crois que loolu lu rëy rëy rëy tey duñ fi jógee yaakaar naa ni ni mu ko waxee ci wàllu mbay. dina am dina ci dugal loxoom lool dina ci am lu mu ciy def lëkkaloo ci ak commune Pekes lëkkaloo ci ak le maire Djibril Mbaye pour que ñuy def ay grande exploitation ba Kajoor jëm kanam voilà waaw dañoo tàmm gis xale yoo xam dañuy dem plage di ay xale yoo xam ne pendant les vacances dañuy dispersé wu et d'ailleurs c'est pas normal donc ci la ay xale ñëw ak man. avec euh, le secrétaire et l'adjoint ñu créé Ma Cité d'abord mais bu ñu créé Ma Cité d'abord dañ ko créé woon lu ndaw la woon yokk suñu koñ di def ay manifestation pour les jeunes des jeunes en neb et autres donc tey Ma Cité d'abord mu si waxtaanee bu baax ñu xalaat si ñu gis ne pourquoi pas ñu créer Ma Cité d'abord dans plusieurs localités au Sénégal noon la commencé avec notre marraine madame Soukeyna Touré ñu commencé ko di ko développé ànd se suñu parrain monsieur Imat mu jàppale suñu bu baax tey nag nekk na lu rey damaa bëggoon nag tey Sénégal jeunes yëpp xam ne il est temps ñu liggéey parce que Sénégal am na talant xale yi am nañ talant bu baax a baax donc lu may ñaaxal ñoom rek mooy ñu nekk benn parce que xool su diisoo rek dinañ nekk benn ñu liggéey dans les meilleures solutions. waaw ndaje tey bi ñu ngi si rafetlu bu baax a baax di na tey interconnexion bi dafa neex jumelage bi dafa neex. parce que tey c'est la première fois ma ñëw Pekes gis naa waa Pekes monsieur le maire mi ngi fi gis naa tam xale yi euh, Pekes nu ñu mel te yaakaar naa ne tey jeunes yi suñu booloo parce que récemment demoon nañ tamit Casamance en tournée dem nañ plusieurs localité donc xale yëpp tey suñu dajewee master yi nekk si région yëpp daje yaakaar naa dina nekk lu rey te yaakaar naa ne incha allah dinañ mën a liggéey bu baax. pour moi, c'était d'abord. De parce que tey euh, Masida boobu ñu créé dañoo bëggoon d' ailleurs notre congrès c' est pour le 22 janvier au Grand Théâtre là avec notre marraine et notre parrain monsieur Imad nous allons parler des projets jeunes nous allons nous allons parler de la formation de la jeunesse et quelles solutions entreprendre pour un Sénégal émergent c' dans ce cadre. Concrètement, sur le terrain, il y a encore rien à faire. Action, quoi. Oui. On est, est dans projets, ce stade. Oui. C'est bien.